suite logique la woon li xew nag dañuy am metitu xol sax suñ koy raconté di ñaan yàlla rek di sàkku ci yéen ngeen ñaanal ñu tamit ba période suñ koy raconté ñu bañ a topp suñu xol par rapport ak lu ñu def ndax xëy na suñu toppee suñu xol mën nañ wax lu ëpp wala suñu xol tooy yàlla nañu yàlla kàttanal dëgëral ñu ba suñu koy awma habitude di ko di ko di ko di ko raconter à chaque fois parce que ça m'a ça me traumatise un peu ça me rappelle de mauvais mais dinañ ba seen teg suñu xol waxtaan ak Sénégalais yi lan lañ daj ci le vendredi 2 juin. le vendredi dama jógee sama kër benn xarit camarade étudiant bëgguma tudd turam parce que bëgguma koo exposer mais mi ngi fii ci salle ginnaaw autorité universitaire yi bu ñu jëlee décision ne dañuy tëj campus social te joxewuñ benn délai ci ñoo xamante ne ñii Tamba lañ dëkk ñii fongu leen ñu génne leen ci anam bu doy waa moom nag mu mujjee woon ñëw daw làqatu si ci benn kër frère bi nekk fii ci foire ma demoon seeti ji ko ma taw ko mais tamit pour xool nu mu toogee bi ma fa toogee ba ay vingt deux heures di ñibbi ñëw naa ba yegg sama man liberté extension bii laa dëkk comme te maa ngi woon am communication bugguma woon yéeg pour déranger ñu ma bokkal appartement ma ne xaaral ma taxaw ci suuf communiquer ba pare su ma pare ma yéeg parce que comme te xaw na guddi waruma déranger kenn fi ñu taxawee di communiquer di tàggatoo ci la ñaari écouteur yi yëpp quatre nervis je pense bien mais mooy il faut retenir ça quatre nervis ñaar ñi ñooy dawal ak kenn kuñ supporté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 gendarme yi ñëw bu ñu yegsee ils ont posé une seule question lan moo xew fii ñi nga xamante ne ñoom ñu ñuy woowee nervi ñu ay gros bras ils se sont comme étant des éléments euh, du ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour d'ailleurs looloo tax ngeen di dégg gërëm ci sama dossier parce que gendarme euh, gendarme bu ñu laajtee les nervis dañu ne ñun ay éléments wu Pape Malick Ndour la Ndour lañ actuellement mi ngi seen TV bi def émission Ndoumbelane le vendredi 2 juin soo leen ko demee vérifier li nga ko gis parce que vérifier naa ko d'ailleurs j'étais même pas au courant après la soo ko laaj vérification ñu confirmer ma ko ñu ne ñoom dañu maa jàpp man ci ay manifestation loolu lañu wax wax gendarmerie lu ma ma démentir ko ci saa si ma ne leen wax ñu dëgg de fii lañ ma fekk sama buntu sama buntu kër ñu nële may wuy téléphone parce que bëggu moon déranger suñu waa kër ñu jàpp ma récupérer sama ay téléphone comme vous pouvez le constater sama ay téléphone mi ngi nii ci ñoom raccroché sama appel menacé ma de mort boole ma boole ma ceeg ay saaga bëggoon ma yóbbu muy tentative d'enlèvement man maa dem wóolu gendarme yi ne comme te nii la demee indi leen ko ci suñu quartier général muy QG bu ñu amoon foofu ci mbedd mi ci benn côté mur ci benn kër foofu lañ doon fumier ay protégé et tout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 commencé woon nañ ma faa dóor ba damaa mujjee waaxu waaxu yu dëgg dañ jàpp ci benn loxo gendarme ne ko comme te vous êtes des hommes de loi yéen la loi bi permettre ngeen mën a assurer la sécurité bi biens des personnes et garantir l'ordre public bu leen ma bàyyi ci loxo ñii parce que xaw ma fu may yóbbu man lan ngaa ci loxo gendarme ndax jaaxle ak tiit ne ko ngir yàlla wax récupérer sama téléphone yi ñu téye ne ko ngir yàlla bu leen ma parce que mën nañ maa fàtt gendarme bi fii la. joxe injonction kenn ci miir lii ne bu leen ko dóor bàyyi leen bu ñu yegg fële boo paree récupérer sama téléphone yi gendarme yi ñoo ko mujjee récupérer ci ci yoon bi. ñu yegg si ci seen QG bi nga xamante ne c'est quelques dizaines de mètres ak fi ñu ma intercepté bu ñu bu ñu comme les gendarmes yi ñoom dañoo am supérieur ki nga xamante ne moo nekkoon chef élément yi nekkoon foofu moo waral ngeen di dégg turu chef Sow. xaw ma sax turam ñu seetaan vidéo bi am na de sénégalais ay image yi la ñu gis image yi choqué ñëpp waaye am na ay vidéo te dinañ ci dikkaat Cheikh Sow moom bu ñu yegsee moom tamit naturellement il a posé la question kii kan la lan lan lan moo xew nervi yi ñooy waxaat ba léegi changé nañu version par rapport ak seen version initiale waaye changé wuñu seen présentation ils ont maintenu leur présentation en disant que nous sommes des éléments du ministre de la ba pare ne chef Sow ndax xamoo kii kii mooy Pape Abdoulaye Touré ci ñuy wax ndaw yi ñu génn di taal réew mi di attaquer nit ñi ci la bokk te pourtant seen version initiale mooy dañ maa jàpp may manifester mais bu ñu ñëwee ba ci chef Sow dañoo changer version mais kii moo nekk ci réseaux sociaux yi di invité jeunes yi à ñu taal yàq réew mi ma démentir ko ci nga loolu ñu wax amul dëkk après beneen nerf bi ne fekk nañ ko sax muy wuy téléphone di jox ay instruction naan kaay leen attaqué fii ñëw leen fii kenn nekk fii ak ñoom set ma ne ko amul de jox ma sam récupéré am téléphone nga jox ma ko ma déverrouillé la ko parce que aw ma taawul sax coupé sama appel suñu supprimé wul appel bi ñoom di gis kan laa doon mu jox ma mu ubbi ko téléphone mu dugg xool dernier appel mu xam ni loolu amut. ma yemuma ci appel bi kese ma dugal ko sama page Facebook ci sama téléphone ma ne ko xoolal mu xool ma dugal ko sama WhatsApp déverrouillé ko dugal ko ci biir ne ko groupe yaa ngi nii bu la neex dugal nga xool ndax est-ce que bokk naa ci groupe bu ñuy taalee mu dugg xool ñaari téléphone nag laa yoroon doyen moom lu mboy léegi nii duma bàyyi ma fenn parce que benn téléphone bi vu que j'étais de tout ce qui communication digitale de la plateforme F24 ñoom ñoo ñoo ma joxoon pour li pour yombalal ma liggéey bi beneen téléphone bi nekk sama téléphone privé mais sama téléphone privé bi dañoo gis euh, euh, bu ko euh, chef Sow taalee dafa gis image yu Sonko image yu président Ousmane Sonko la gis ci ci ci ci sama fond d'écran de verrouillage rek discussion yi jeex na de amatul wax yow lu tax nga def yow lu tax nga def Ousmane Sonko mi fond d'écran comme demal Euh, apprenti juriste la te jàpp naa ni gendarme yi xëy na ay nitu yoon lañu ma ne ko ah téléphone bi maa ko moom su ma neexee def ko ma neex fond d'écran ba ci Michael Jackson sax su ma neexoon ma def ko fond d'écran Michael Jackson boobu laataa kàddu gi di daanu ci la ñu ma ci la ma dugal fu boo xamante ne ko fàtte ko moom chef Sow ki jiite woon gendarme yi nekkoon foofu ba pare joxe ordre ay éléments na leen yóbbul leen ma ko fële ci côté mur bi. dinañu wax kan moo ko yónni ñu jagat jagatee ma gendarme yi rek ci lim matoon nañ une une vingtaine wala une trentaine de gendarmes nervi yi ñu ma jàpp initialement laataa ñuy yegg ci QG bi romb nañ ay yeneen check point nervi yu ñëw dollee ko ci lim bi ñu ñu sekkoon ñëpp ci gendarme ak ay nervi ci xayma matoon nañ cinquante personnes ñu yóbbu ñu taf ñu ci miir bi toogloo ci suuf ma toog. ñu ne kan moo la yónni ma ne kan moo ma yónni ci lan parce que nit suñ ko yónnee dafay am objectif yónni ci lan ba léegi ils sont incapables de me dire yónni ci lii maanaam kenn yónni wu xëy na da nga bëggoon ma ne Ousmane Sonko ma yónni pour ñu mën ko dem jëriñ maanaam kenn yónni wu sama buntu kër laa taxaw di wuyu sama a et que j'ai j'ai am naa am naa ci droit dóori commencé kan moo la yónni teel teel teel teel kan moo la duma ma duma yu méttee métti bu ma juddoo sama ndey sama baay ba léegi musuma gis duma yu mel noonu waxuma la ma duma ko man de mais musuma gis ku ko dumawee jël seen ay tonfa mooy seen bâton yooyu nga xamante ne dafa dëgër amuñu sens interdit ci sama yaram kanam bopp nopp bët fépp lañ doon dóor damaa baare baare ba looloo indi sama fracture bii ci sama loxo bi ndax ay baare pour bañ kuuy pour wàññi effet couille au niveau de mon de mon visage et sur ma tête ñuy dóor di dóor dem naa ba benn moment su ma so bu ma sonnee pour ma mën a jëlaat tuuti air pour mën a nooy nooyiwaat tuuti ci vidéo yi ñu ko seetaan mën nañ ko confirmer maa ngi doon naan Cheikh Sow ndax mën naa wax Cheikh Sow ma wax parce que jàpp naa ne su ma waxee loolu chef bi dina arrêté loo élément bi ma nekk di dóor pour mën maa déglu léegi saa su ma waxee loolu day arrêté day wax gars yi arrêté léegi arrêté boobu temps boobu ñuy arrêté muy ay quelques secondes dama ciy profité waat xaw a jëlaale air tuuti ma ne ko nax dëgg nga bëgg dégg wala da bëgg ma fenn mu ne ma wax ma dëgg ma ne ko dëgg bi mooy kenn yónniwu ma kenn yónniwu ma jox naa la sama téléphone vérifié nga kenn yónniwu ma j'avais que librement amee préoccupation ñu jàpp mu ne acawaat gars yi commencé dóor. man daal dóor nañ ma ba benn moment di fàttali ne 23 heures maa ngi ci ay loxo maa ngi ci seen loxo déjà ba presque 2 heures moins te amul benn moment bu ma toog noppalu amut 23 heures ba 2 heures moins 2 heures du matin ñu ngi may après ci laa jékki saay parce que dañoo bëri wër ma nervi yeeg gendarme yëpp ñoo ànd def coalition doon ma torturer. donc ñu ñi wax ni Pape Abdoulaye Touré ay nerveux ko torturé ils pas am euh, wax nañ dëgg ñi wax ni tamit Pape Abdoulaye Touré ay gendarme ñoo ko torturé wax nañu dëgg ndaxte ñaari identité yi ñoo def coalition doon ma torturé buñ may dóor flash yaa ngi tàkk gisatuma dara parce que projecteur yi sama bët bi man daal maa ngi baare rek man daal maa jékki say gis xaali birig buñ ma sànni mu jóge ci ginnaaw gendarme yi ñëw ci man moo waral sama bopp bi xaru bu ñu ma dóoree birig bi ma ma ma tombé dans l'inconfiance ma xam li ma gën li ci gën a metti mooy bi ma xamee taxul ñu arrêté taxul ñu tiit taxul ñu raf dañu profité ci xam boobu ma xam ñu dóor ma ay monat mooy monat yooyu ngeen di gis ci image seere monat te période bu ñu may monat fekk ne damm naa monat yi damm damm yi lañ boole seere ko bu mu dëgër mënate ma par derrière mënate ma sax devant kon moo mën a protéger wu par derrière lañ moo mënate am nag accès total ci sama tête ci sama kanam ci sama bopp ak ci sama ay articulation def ma dos au sol ñoom seen ay terme la parce que dégg naa leen ñu koy wax mettre leen ko dos au sol maanaam jaaxaan loo jaaxaan loowee lu muy ximiliku dama fekk benn gendarme kenn ci ñoom te jël seen ram yu diis yooyu wallahi fii la ma ko teg ci baat ci diggante dana bay baat pour neutraliser sama bopp j'étais au sol ma gis ñaari gendarme ku nekk jàpp te ñaari loxo mu mu dëgër sama ñaari tànk yi ñeneen ñi wëriñ ki jëloon tànkam teg ko ci sama baat bi dafa jël guttu dix litres def ci ndox def ci suuf suuf boobu ngeen doon gis ci sama yaram ci image yi ménage boobu la parce que xam naa bëgg nañ ma yee xam nañ ne xam naa bëgg nañ ma yee ñu jaaxaan loo ma di ma sotti guttu dix litres bi ak suuf si muy dugg sama gémmiñ dugg sama ay bët fees dell ci sama ay nopp man bu muy ximmiliku wallaahi azim damaa fogoon ni maa ngi dañ ma dañ ma mujjee tëmbal ci géej ba dama maa ngi nekk di lab pour man dama nekk di noyé ah, bu muy ximmilu ko te man dama amee traumatisme boobu parce que j'ai failli me noyer deux fois moo tax bu ma ximmilu ko dama foog dañ maa sànni sax ci géej gi buñ ma sottee ndox ba ma ximmilu ko ñu yëkkatiwaat ma tafaat ma ci biir kan moo la yónni kenn yónni ma ñu continuer waat di dóor di dóor ci ay articulation sama tànk yi dañ ko mujjee tàllal dama toog ñu ne ma tàllalal sa ay tànk ba ma tàllal ko ma taxaw xaj ci tonfa ba loxoom bi sës mu dóor ci tànk yi looloo indi fracture bi ci tànk yi dafa dóor a dóor a ba su ma bànkee samay tànk ci genoux yi lay dóor du ma ma dóor yu méttee méttee méttee